donc forcément comme dama bëgg dama ay Mais en compilant l'ensemble des départements du Sénégal, aujourd'hui, nous pouvons un minimum de 57% pour le candidat le président Macky ma lay wax nag danga ko naa ni. minimum de voix bu muy am dina nekk cinquante sept pour cent man maa la wax nii. Mhm. atam man nag affaire am naa tam ay ay jumtukaay. mais maa ngi tam ci réew mi maa ngi ci réew mi ni nga nekk ci réew mi. mën mhm. nañu juróo nag ay xalaat. d'accord ak nu ñu xalaat. Euh, gouvernement bi moom ci sama ndigal du def lenn loo xam ne dana méngoo ak lu lu lu yoon wax.